jóg leen taxaw nuy sant Seyxi Falilu taalibe bu mag bi ci mbax gu landi gi di El Hadji Seydou Sy le grand communicateur religieux de la banlieue léppam di Serigne Touba ko yaakaar mu ne Cheikh Mohamed Fadel Mbacke Khadim Rasoul El Hadji Seydou Sy moo yëgal soppe taalibe yi ak réew mi waa bitim réew ne bés bu mag bi muy def ak mu nekk di ci dello njukkal ak sant ak sargal Cheikh Mohamed Fadel Mbacke Khadim Rasoul bés ba dellu si na grande journée delloo njukkal sargal Serigne Fallou Mbacke samedi de 17 Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool Mbacké tànd ak gwér ci kilifteefu Serigne Abo Mbacké di xalifab Serigne Fallou Mbacké Serigne Bachiru Mbacké Falilou di jëwrinu Serigne Fallou El Hadji yu fay représentant Serigne Touba à Dakar bés bu mag te màgg bi ren jii ñoo ngi ko parrainé ku réew mi yëpp di sago kooku mooy Serigne Fallou Galas Lo gaydeel mu baax mi buur daali gaynde kokki di jàmbaar lool ci daare kokki jàmbaar lool ci yoonu murit jàmbaar lool ci diine l'islam Marraine d'honneur yi soxna Bali Mbacké Mountakha fondation soxna Bali soxna Mame Faty Mbacké Xëfoon ajaratu Fat Bintou Pouy Mbàkke madame le ministre Mariama Sarr ajaratu Soxna Daba Sarr di jëwrinu Serigne Cheikh Oumy Falilou Adja Gamou Diop jëwrinu Masalikul Jinaan ak transitaire bu mag bi ci réew mi di Soxna Fatima Si ñooy invité d'honneur ñu ne son excellence monsieur Macky président de la République du Sénégal monsieur Amadou premier ministre maître Sidiki Kaba ministre de l'Intérieur monsieur Antoine Félix Diome ministre du Femme m Birima Mangara président El Hadji Tahirou Sarr opérateur économique Cheikh Makhtar Diène kuréel social Serigne Khadim Gueye di jëwriñu El Hadji Bara Falilou Serigne Mouhamadou Samb soldaaru Serigne Touba Serigne Fallou Mbacké RTL Transit Moustapha Sow borom banque Microsen Cheikh Malick Sène marabout de la diaspora Serigne Cheikhouna Mbacké DG Fallou Transit Transport Cheikh Fallou Mbacké PDG Fadel Business Company Cheikh Diop Koki président fondation Soxna Bali Muntaxa Mbacké Samb PDG Goyar Transit Cheikh Souley Diagne PDG Alu Distribution Monsieur Omar Bao Junior opérateur économique Mamadou Dieye Sène opérateur économique m Thiam Teranga PDG TTP Serigne Abdou Karim Mbacké président directeur général Huile Binta ak rakam Serigne Fallou Mbacké Monsieur Abdoulahat Ka maire de la ville de Touba Monsieur Mor Waré Gueye maire de Ndiarim Limamoulaye Monsieur Pape Momar opérateur économique Cheikh président Macky Sall monsieur Khalil Ndiaye PDG Socotraal Djili Silla opérateur économique Moustapha Cissé Khelcom automobile Serigne Modou Thiam représentant Serigne Fallou à Dakar Serigne Seydina Omar Bousso représentant Serigne Touba à Guédiawaye colonel Mouhamadou Bamba Sall colonel Abdourahmane Ba colonel Lamine Sarr monsieur Youssou Silla PDG Satracons Serigne Pape Jamil Sarr bu Serigne Ahmada Sy bu Seydi Jamil Sy monsieur Ibou Fall PDG Bogo Transit Serigne Omar Ngom di kilifa diine Serigne Cissé mu Serigne monsieur Cheikh Mbaye Guèye PDG ambassadeur Serigne Mandoumbe monsieur Sidi Mbaj PDG Huile Soda monsieur Moustapha Dia PDG SIPA oustaz Modou Fall bu télévision Futur Média monsieur Khadim Diop opérateur économique Cheikh Samba mu Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Minicar mu Serigne Saliou PDG ak Serigne Abdou Ndiaye Kouroustier Pikine Cheikh Mbacké Gadiaga PDG Info Sénégal fas yéene sargal ci bés ba nit ku baax nit ku oyof bëgg lool Serigne Seydou Sy di Cheikh Fall Ramata communicateur traditionnel bu mag a fi bokk ci ñoom radiyallahu taala anhu sëriñ Modou Makhtar Mbacke mu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke radiyallahu taala sëriñ Khadim Mbacke mu sëriñ Modou Boussa Dieng rahmatullah alayhi El Hadji Mbaye Dieng mu sëriñ Fall rahmatullah alayhi sëriñ Cheikh Ka mu sëriñ Fall ak fa monsieur le maire Baydi Sey newoon taalibi sëriñ Touba bu mag grande journée delloo njukkal ak sargal Cheikh Mohamed Fadel Mbacke Khadim Rassoul ak le grand communicateur religieux de la Touba Fallou Seck Tabala ak kuréelu xasida yi la ñu fas yéene àndal ci animation bi. jóg leen taxaw nuy sant say xi Falliloo